Bienvenue sur Salam Vision. kon ngay jógaale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 إنه ينجهره ما يقضي وأن يسرك لليسر فذكرني إن بعد ذكرى ليذكر من يخشى ويتجنب الأسرى ويقرى ثم لا يموت فيها ولا قد أبلها من تذكى وذاك أزمر به فسل وتكسبون الحياة الدنيا ولا يخلق غير واقع إن هذا لبسوء الأولى ثم في إبراهيم ومن سمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله lool assalaamu aleykum allahu akbar walilahi alhamd alhamdulilahi muqaddiri maqduri wa musarifi alayami wa suhur wa ahmaduhu ala jasiri nihami wa غفور شكور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا ناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في سوء مرور الأيام والليالي وتذكروا بسائر قربى امتدادكم من هذه الدنيا فتزودوا بسائر الأنمار حل بكم شهر رمضان المبارك بخيراته وبركاته واسكن جميع أوقاته ثم انتهى وارتهل وارتهل شيئا شاهدا سائلا عند ربه لمن حرف قدره لمن حرف قدره واصطفاه من غيره بطاعته وزائد على من تجاهل فضله alaa man jaarahu llaahu wa asmaa wa astafaaha min gayrihi wa astafaaha min gayrihi bi taa'ati wa saa'ilan alaa man tajaahalahu llaahu wa asaaha fiihi bil idaati falyuhaasib kullun minnaa nafsahu kullun minnaa nafsahu maa taqaddama min dhanbihi wa man qaddama fiihi khayrun falyahmudillaaha ta'aalaa alaa zaalika wa liyas'alil qabuul wala istimdaaru ala taati fi mustaqbali ayaati wa man kaana munfaridan bihi falyutub ilaahi wala yubdax xayaatan jadida wala yubdaxa xayaatan jadida yastaxilha bi taati fi mustaqbali ayaati fi mustaqbali ayaati badalu ayaati lati adaaha lati adaaha fi lqablati wal isaati qaala taala إن الحسنات يذهبن السيئات سارق الذكرى ساكرين قال sallallahu alayhi wa sallam واتبع العصية الحسنة تموها على ما تبقي يا مرحبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله لا يلزمن على عباده ألا أن لا يلزمن علينا دين الإسلام ولا يصال يوالي على عباده مواصل الفضل والإنعام ونصر أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما أقول في عباد الله وسبحانه في أولئك تعالى قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون التقوى هي أدب الذنب أدب الأول لسمع التقوى وتابعوا في الخيرات بعد رمضان فإن من علامة قبول الحسن في رأس البلاء فتنبهوا على أنفسكم رحمكم الله wansuru haalakum badala mina ayyuhal muslim man saama an itaa'i wa sarabi fa sawmu wa aadatu wa man saama an riba wal harami wa aftara ala al halaali min ataami fa sawmu wa habdatun wa ibaadatu wa man saama an zunubi wal isyaani wa aftara ala taa'ati rahmaan fa innahu saa'imun ghaddiyun fa yaa ayyuhal muslimuun in kaana ramadan qad maata ka annahu tayyibu hayaati wa asaltum ala al-awdati ila tafrit wa taqsir falillahi hayyun abudun sarmadun la yadru la yadruku zawal wala yuzni qadahu al-afat اللهم اغفر لنا لما تقبل اللهم اغفر لنا وذاك التقبل وارجو الى ما يجيب في السر ولا ينال اللهم صل على سيدنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر mbokk ji lii ñu ngi sant yàlla yàlla dafa xëy mooy dogal dogal soppi bis yi ak weer yi ñu sant ci may yu bari xéewal yi ñu te mooy xam wóor la sàkkoon jéggalaa kon la santaa kon jaam bi kon la muy seede ni moom rek dal ko du moom nu seere moom it sallallahu alayhi wa sallam ab jaamu ñu ko ginoon nu jiitu moom sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nanu jiital ci suñu bopp ragal yàlla nanu jiital ragal yàlla ci lépp suñu yëpp ragal yàlla mooy lépp bu ko ñàkk ñàkk lépp ragal yàlla mooy tax a dem ñu digle bàyyi ay mbokk yi bu lu nax suñu bopp nu xalaat bu baax bis boo ñàkk bu dem jël daal doo ko amoon amaat guddi gu jaar dem rek romb na sa dund wàññi ko na sa dund doo doo ko jotaat mbokk jullit yi nu fàttaliku bu baax daf leen di jëm ci loolu mooy day day waral ne rek dana doxu dem feneen dana doxu day tax tegtale dana doxu nan la mën a nan la mën a jëf jëf ju baax weeru koor weeru tedd weeru bëri bëri weeru bari bari barke nu dund ko mbooleem waxtu yi nu dund mbooleem waxtu yi waaye weeru jeex laxas na ci lu gaar nga xam ne moom gan ko accéléré takk bagage gan ko accéléré indi yu bari waaye nag bu ñu agsee rek na waajal bagage bi nu daal daan def rek dem na wér ku mu yóbbaale woon rek kenn gënu la mbokk ji dem na ci waaye day seet istixlaal moyen ñëpp te lépp am ci doon ci jot mu def lislaam topp yàlla ci lu jub si ci lu jub si mu remplacé a mu sàmmoon ci ci lu ko ci dund bees te mooy ne ko yiw te sax borom soo daal ñu ne xam ne de dina def lu ñaaw ba rek mu def lu mu faral lu ñaaw lu dem ñooñu ci wàllu sax nee na boo def ci ba def jëf ju ñaaw. defal sa jëf defal sa jëf ju rafet mu far ko koy bokk ci biir képp ku amul càggante ci weeru koor bi na tuub dellu dellu gannaaw te jéem a lépp loo xam ni mooy lu rafet ngir sa jëf ju rëccël jooyu far <coughs> bokk ci biir kon weeru koor weer bi li ci jëkk am mooy gën ci ragal borom subhanahu wa taala dafa wax kutub aay bi sama kama kama kutub aay bi dafa mën a am dafa kon dogal naa ci yéen ngeen woor ni ma ko dogalee woon ci ñu ñu leen jiit kon nga xam ne koor loolu taxfiif la taxfiif la ci ndigle bu ñu la déggee dañu war a ne ne loolu la digal kat digoon naa ko la jiit woon te defoon na ko dana woye fa yow nga xam ne kat kon yow kat kooku wul làmb war nga daal dugg bu baax a baax moom la ñuy wax taxfiif ci wàllu digle te woyaf dana ko woyafal bu ñu rek di ko doon daal ñu jiitu woon kon woyaf bi man war ko koo mën donte ni ñu la ko joxee dafa ko lépp amuloo di def loolu kenn la ci xeetu moom it salaasa waaye nag borom daal bi ñu ko digalee te tax taqwa la ne da ngeen ko ndax ngeen amee ko ci te mooy da ngeen ko ci am mooy da ngeen ko ci am laala kenn du ko jubale jëmale borom subhanahu wa taala borom bi mu ne laala boo defee lu baax rek am nga ko ci laale ko tattaqoon kon am ngeen ngërëm dara yàlla te mooy li mu la ko waxee bi ko noonu rek ba koor bi jeex xam ne mooy euh, li nga xam ne mooy te mooy li ñu ciy jëkk kon mbokk yi nañ ci toxal ak yiw gannaaw gannaaw yoon bokk na ci maanaam day mën sa jëf nag mooy jëf jëf di nga jëfaloon nga topalaat sa jëf jëf na nu yeewu ci suñu bopp

waaye bàyyi lekk rek suñ tubaab ne képp koo xam ne moom da ci wax yoon bi sax mën ngaa lekk te naan waaw man lam yada xawlu sóori wala amul bi fale fale sëñ la ajal fi nga tax taa mu wasara suñ tubaab bi ko wëj mu ni képp koo xam ni yoon bi nee na képp koo xam ni bi nga woole mën a bàyyi wax du bon ak di ko jëf lekkal te yàlla ne mu soxla ci sa ko comme moom soxla kay lekkal jógee itam nag noona la war a mel de dañuy yokk ci dagal yu ñu yu ñu jéeroon ba cëpp waaye li xaraamoon du buñ ci doog mukk li xaraamoon di koo gi ñëwoon mukk dañ ci woor toujours mooy tax sa koor mën a mel te sa koor ñi nga xam ne yàlla nangu na ko mooy bi koor gi jàllee nga mel ni nga mel tàggat na ci lu rek suñu bopp la amul soxla amul soxla ñu di ko waral waaye nag suñ bopp la bëgg a tàggat ba nu xam mu muñ boo nekk ci nit lépp ne fi ñam yépp ne fi nga di ko muñ di ko muñ ba jël so boo ko a mën muñ comme muñ nga leen a dagg ndax jël so laa loo kon boo fi jigéen dana xalaat noonu nga ko war a mën a muñee ba doo ci tànn loolu mooy ko bu nu nag suñu bopp kenn du waral kenn kenn du waral kenn kenn ku ne yaay waral si bopp ku ko mën ku ne yàlla nee na boo ko mënul óolu nga ko kenn bu ko kenn doon waral boo ko mënul mu ne kon ne la sa doon waral wala sa baay wala sa xarit nee na la soo mënul tëgu mënu ko kon ko leneen li muy lay tëkkale mooy kenn du woo kon du kenn du waral kenn kenn ku ne sa baal la lu teg kenn du dindi kenn kenn ku ne sa baal la ku war dem Makka te mën a dem Makka te am wér kenn mënu la ko defee ba léegi ba. Imaam Maalik wax ne boo leen di joxe jëf yaram muy farlu ay Imaam Maalik nee na kenn mënu ko defaale kenn boo dee woon sax bu ñu la ajalee aj aj ajjinaa fi la du remplacer sa farata fa war nga war nga war te bi nga ko waaj bi nga war nga lànk di ko ba dee suñ la ko defee du wàcc kon nu xam ni yàlla di nga ci noonu. dafa nangu ci aw yiw rek yàlla dafa nangu ci aw yiw kon li muy digal suñu njariñ rek li muy tere suñuy loxo li muy tere suñuy loxo nu sori ñuy wax lu dëgg lu baax di ko jëf fas yéene nekk benn julli day def julli yëpp moromam julli yëpp ci xolam def ko muy ñaar loolu moo doon julli julli day def balaa nga dugg julli yenn saa ne la bala ngaa nekk julli li nga bëggal sa bopp nga bëggal sa bopp muy la def waaye bu ñu ko def su nga ne di nga di nga yow benn xol rek seytaane lax seytaane na la kii li mu def jàngu na nga na nga gaay daaw gën ko képp li yàlla ñu wax nag nekk digaloo boo ku mel ku ku mel soo ca nekkul ne gënoo kenn gën ci wàllu wàllu mbay wala wàllu bay ci ragal yàlla ak jiw rek la ñu jëm ko yàlla kon koor jeex boo wooree ci ñam ak naan rek ba jant bi soo waaye ni koor tere lépp yaa ngi ma nee wóoruloo koor aar rek rek waaye nag képp koo xam ne woor te bàyyi lépp lu xaraam ndax ak riba riba dañu ko firee yokk mbir waaye riba lépp lu xaraam rek dañ naan riba riba bi dañ naan lépp lu xaraam riba kon bàyyi riba ak lu xaraam mu woo mu mu woor mu dog ci def ci lu dagat nee kooku kooram lu wér la kooram di jëm topp ci topp yàlla rek nag nee na kooku kooram lu ñu nangu lay doon ndax moom li nga digaloon def na ko mbokk bu fekkee ñu weer koor nag wéy mu mel ne rek janee sa bët daa mel ne sa jane jane sa bët rek romb la nga ñëw lu ma gis mu jàll nee na mel ndax dañuy ndax dañuy delluwaat ca na meloon ba ñu wóoragul ci ak càggante ak sàggante ci wàllu diine laaj la ndax dañ ciy delluwaat kon bu ca dellu dellu gi bokkul delluwaat ci tàgg nga meloon ci weeru koor loolu mooy firi ndew sa koor yàlla mujj la kon nan la fas yéene bu fi jógee rek ñu xam lii koor yàlla nekk ci yow koy sàmm sa digga sa sa bopp da nga sa digga sa sa digga moom ci am am yépp nga sàmm loolu mooy ragal yàlla yàlla na jafe kon ndax dañuy dellu rek ci tàggate nga newoon ak gàttal bu ñu nee waxtu bi jot da ngay ñiig bu ñu santaane nga ni ko bu ñu diglee jàng waxal nga ni ko kóote bu ñu nga ni ko bu ñu diglee baax ci baax bu ñu wax nga ni ko kóote lépp lu ñu wax bokkul moo ne yow ñu liggéey dafa jaar ci xam nga ni ko ku gën kenn day nangu lu baax lépp li ñu santaane te du ko jëfe bañ a am nag kooku wéere kooku du kilifa yi jiit ci diine yëpp ku ci baax ku ci nekk ku ne dañ xam ne lislaam rek la tax a taxaw lu mu digle ñëpp ko war lépp lu mu digle lu baax kenn warul xool nag kii laa kee kilifa diine bu ne lay tax sa kilifa diine topp nga wér mooy da ngay nangu kilifa diine ji des waaw nangu ñëpp jël baax da ne bu solo cëru baax ne nga dem nga leen di yëpp nga gëm ne yàlla ne ñoom ñëpp ngay gëm nga ne ko ñun ñëpp waay da nga leen gëm yàlla ne ñu ne da nga leen gëm ba mu jeex nga nangu ne yoon saa bi moom la yàlla yónni ci yow waaye teewul nag ñëwee seen gisaar gëm lépp lu ñu war a ko gëm sa ngëm doo ko mën sa ngëm doo ko sa ngëm doo ko baax noonu la aw yaaw yi doo gën a bëgg ku baax nga bañ kenn ku baax heure boo bañee ku baax rek am na bokk ci biir na defar xol yàlla jël ko dugal lépp lu baax kon yàlla moom bu fekkee da ngaa gàttal bu ko gi yàlla rek dem sa nga nekk wala nga nekk jaamu weeru jaamu weeru ko mooy nag tey yàlla dogal subhanahu wa taala ko jaam ci bépp wax ak bépp saa yëg la ko xam ku ko mooy ci bépp wax ak bépp saa yëg la ko xam kon yàlla boo ko bépp bul ko ko jaam sa niru bu sa niru bu boobu dina ko xam ngeen ne affaire du dina ba yàgg ni am dem ba yàgg ni jeex doonul lu waaye ci nit jot li ko wax di du wax du ko wàññi dara kon kooku rek mooy yàlla kon kooku mooy yàlla lu góorgóorlu baax suñu diine góorgóorlu ji bu baax a baax am ni weeru koor weeru weeru tàggat dafa nu tàggat tarbiye ngir jukko yeeg ngir jukko rek lu góorgóorlu ci baax dafa yéene nekk benn ànd nekk benn nekk ak jullit jullit ci boppam lay tax mu nekk jullit lañ sart ni moo jullit da koy def sart yàlla sa naan ci jullit mooy farata bu ci xaar kenn na nga ko def ñaareel bi itam euh, li mu la digal ci wàllu fa waajib bi waajibaat yi des te mooy yow góor dem jàkk góor du julli fi jàkk góor amul ngat te jàkk nga dem julli soobul ngat ajjuma bu ñëwee da ngay dem ajjuma ak ku mën a ajjuma <coughs> bu la tëddee kenn wax la wala ajuma ngay dóor dóor da nga war a judd da ngaa war sa dëkkandoo nga da saa ci dëkkandoo dañ koy sàmm ndax day yàq sa lislaam sa dund saa ci mbokk bi nga bokkale da koy sàmm sa bi nga bokk askan da koy sàmm ki bokk fas ngir lislaam kon léegi boobu da koy sàmm yàlla ngeen koy lekk kon mbokk nu nekk ak jullit àq nu fas yéene nekk ak jullit te nekk mooy dem tool Serigne Touba li fi nekk lépp loolu loolu loolu jàng loolu loolu digle loolu loolu digle te moom digle wul wul loolu dul nit ñi jëm seen borom bañ a bañ a bañ rek bu dee bëccëg bu dee bëccëg xanaa fii ay yoon ci nit ñi xamul aadam seen Bachir nee na ñu xamul aadam su boo ñu saa ñëw ci gën danañ faral di te mooy waxtu julli yëpp ngay liggéey. sooy liggéey boo xam ne te léwa jullit yi lépp yàqu loo mën a liggéey a ko mënul nga woor sa bàyyi liggéey sa bàyyi loolu mooy euh, njiital islam njiital islam foofu ji nga ji nga jiite mu bëgg a jàdd teg ko ci suuti jaayul na la bay bu dee jooy rek na la bàyyi place xam kooku li muy topp nit ñi sax kon yàlla yàlla dimbali yàlla yàlla dimbali yàlla yàlla dimbali yàlla jeexal na koor gi ñu góorgóorlu baax ñu góorgóorlu baax ci ñu dugg balante ak comme dëgg ci ak comme dëgg ci ak yi nga xam ak alal la balante ñu ko dindi fay borom wala nga dem ci borom sàkk ko jëgal mu jëgal xaq yi na yu la looy ji ba kabaay yi nga xam ne nag sa digg sa borom la moom it yi ngay def yëpp muy far bàkkaar bu dindi tuub rek tuub rek koy dindi tuub tuub rek nga koy dindi tuub tuub bu mag doo ko ci ñëw doole del loolu moo koy dindi kon nan nan tuub dellu ci yàlla am yàlla yàlla yàlla ñu ngi dund yàlla yàlla ñu ngi koor bi ak yàlla nangu yàlla yàlla nangu koor bi yàlla yàlla nangu koor bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant mboolem waa jumaa ji nag ak di ko seq ñëpp nag di sant si dem di leen sant ñu dem ci itoo gi ñu itoo barab bi ba ñëw joxe seen sunna yàlla ko yàlla yàlla ko yàlla ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ci li teew yëpp nag di bàyyi ak laaj wax seen mu jotal kàddu yooyu ñëpp daal ñuy gërëm ñëpp ñaan yàlla la kilifa ji di fi ne jëtt seen Muntaxa Basiru yàlla ko yàlla yàggal lool bëgg lu baax lool nga sax ak mel na moom sëñ Ababacar Faye Mansour xam naa ko bu baax ak mel na moom ñëpp nag ki dafay génn yëpp moom dañu ñaanal yàlla yàgg leen fi yàgg seen gannaaw seen suñu njëriñ nekk na jëriñu leen dara suñu njëriñ nekk na waaw suñu njëriñ nekk na kon ñu ngi sant bu baax a baax di gërëm ñëpp di baax kon alaay xam seen bay waaw waaw yal yàlla yàlla dëgër yàlla dëgër seen boole lépp luñ ci fàggu yàlla fàggu jëmale waaw ñu ngi ñoom tuuti sa jër gaaw a fàtte ci mbooloo bi ci dimbali ci mbooloo bi nga xam ne kon dell sa dell sa tubaab bi kon mooy ci doon mbooloo bi yëpp ñu koy nuyu di ko siyaar moom jàpp kontaan baax ci teewaay ah jàpp yaakaar baax ci teewaay ndax yàlla na mu tuddi muy ñaan yàlla Euh, borom gaawaan mën ko tuddee dama am ci dara yàlla ko yàlla yàlla yàlla jox ko dara yi jëpp ak dara yi maam yàlla ko yàlla wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmaani rahim hamdi wa sukri liman kulli bien sara luhuuri dan duunu suqtal inda sarsara luhuur Bienvenue sur